Euh, enquête quotidien ñu wéyal ak les échos yéen a kaay moom dafa ñëw ci libération bu Ousmane Sonko wala libération bi nga xam te ñu koy jot bu Ousmane Sonko ak i ñoñom mu ne pourquoi les affaires Adji Sarr et Mame Mbaye Niang sont exclues lu tax li nga xam ne ni moom mooy euh, mbiri euh, Adji Sarr ak yi nga xam te ne moom mooy Mame Mbaye Niang ñu génn ko ci amnistie bi mu ni ce sont des dossiers privés mu ni loolu nag ay dossiers ay dossiers privés lañ maanaam diggante ñaari nit la ñoo ne itam ci li nga xamante ne nii day génn ci champ bi am na si bi nag concerné li nga xam te ne moom mooy euh, fee yi nga xam te ni mi ngi jëm ci wàllu émeutes yi ak euh, poursuite yu kii di procureur moom ñoo ne ci moom les échos euh, les anti-report mettent en place un front de résistance ñi nga xamante ni daal bëgguñu ñu toxal élection yi ñoom euh, ñu ngay daal taxawal ab kuréel ñoom ñëwaat na ci beneen forum de for for front lañ ko tuppee ak boo xamante ni kii di FC 25 mooy fukk juróom-benn candidat yi nga xamante ni dañoo bëgg dem ci élection yi ak li nga xamante ni mooy F24 ak aar sunu élection ak FDD ñoom daal ñoom ñoo ko daal di sekk ñëwaat na ci partenaire financier ak technique yi nga xamante ni ak acteur économique yi ñoom nag artu nañu leen ñoo nañ cëm ci contrat yi nga xamante ni dinañ ko signé ci période bi nga xamante ni nii dañ koy jàpp période révision wala sax ñu wala dinañ ko réviser wala sax ñu daal koy annuler front bi moom nee na itam déet ci li nga xamante ne nii moom ma di ab amnistie ñu wéyal ak le quotidien moom dafa ñëw ci li nga xamante ne nii moom moo di attitude yu greffier yi doon amal euh, mooy bi ñuy déglu ki nga xamante ne moom moo di maître Ngagne Demba Touré le parquet lance des poursuites parquet bi mooy procureur moom ma ngay ca seen i tànk am na ñoo xamante ne aussi ñu ngi leen di euh, identifier na leen maanaam xam nañ ñen la ñoom itam ñu ngi leen di daal di viser moom ñoo na ci moom le quotidien ñoo na itam ci li nga xamante ne moom mooy euh, géej wala gaal gi nga xamante ni suux na fële ca Saint-Louis ak lu toll ci juróomi nit yoo xamante ni teg nañ leen loxo teg nañ leen ci loxo leen euh, di euh, tuumal nag mooy dañoo njort ni ñoom dañoo nekk ñoo xamante ni ñoom ñoo nekkoon les convoyeurs maanaam ñoom daal ñoo fexe ba nit ñi dugg ca gaal ga maanaam ñoom ñoo doon laaj ca paas yi ñoom ñëwaat na ci moom la quotidien ñu wëyal ak le témoin le témoin moom itam dafa ñëw ci gannaaw li nga xamante ne nii. moom mooy président Sall bi mu waxee ci ab tweet euh, ab tweet ni li nga xam te ne moom mooy départu mandaam moom euh, maanaam mandaam day jeex le 2 avril te day dem yoonam ñëwaat na ma ngay wax ñaari scénario yi nga xamante ni moom ma mën a am moom ñëwaat na ci moom mi di le témoin quotidien Vox Populi sax ci waa kàddu yooyu la ñëw mu ni Macky persiste qu'il va partir maître Sidiki Kaba dessine les scénarios de l' après 2 avril ki moom nee na moom alaakulli day dem maître Sidiki Kaba nag ma ngay wax la mën a am gannaaw ba président demee mu ni conseil constitutionnel day euh, sukkandiku ki li nga xamante ne nii moom mooy article 36 alinéa 2 bu constitution bi wax ki nga xamante ne moom moo di président de la république mënoo dem. Euh, di nga des yeneen ñaari weer ngir ñu mën a daal di amal li nga xamante ne nii moom moo di euh, jël caabi yi jébal ko ki nga xamante ni moom moo di kañ fal yees waaye tamit ñëwaan na ci moom mi nga xamante ni nii moom moo di vox populi wala sax camp de vacances assemblée nationale wala président assemblée nationale moom mooy jël li nga xamante ni moom moo di lenk yi moom ñëw na ci moom mi di vox populi ñëw na itam ci bi la ci chavirement maanaam gaal gi nga xamante ni suux na fële ca euh, gaal gi suux waaw fële nga xamante ni moom moo di ca Saint-Louis mu ni bilan bi nag euh, àgg na ci jamono ji lu toll ci ñaar fukk ak juróom benn nit yoo xamante ni nii ñàkk nañ ci seen bakkan ak juróomi nit yoo xamante ni teg nañ ci teg nañ leen ci loxo kenn ci ñoom di app euh, soxna moom ñu ànd ci moom Vox Populi ñu woyal ak euh, enquête bu Al Jazeera ak fondation Porcosa ñoom ne ngay incriminé li nga xamante ne moom mooy garsi ci li euh, a xam te ne moom mooy répression violente yi amoon fii ci réewum Sénégal mu une unité d'élite euh, de la police sénégalaise formée et financée par l'UE était censée lutter contre le, la criminalité transfrontière. Au lieu de cela, elle a été utilisée pour réprimer un mouvement euh, populaire. Conclut l'enquête, nous avons enquête. Euh, ci li nga xam te ne moom mooy Euh, lii di euh, Garci di ab unité boo xamante ni nii euh, waa police lañ waaye Sénégal police Sénégal la waaye ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen tàggat ba pare financé leen moom mooy Union européenne li ko waral nag moom mooy daal di ñoom seen li ñu war a def moom mooy xeex lépp lu jëm ci wàllum criminalité jëm ci wàllum frontières yeeg yu nu mel waaye defuñu loolu li ñu def moom mooy daal di ñëw di bokk ci ay manifestation moom la enquête bi daal di wane ministre ba ministre wala ministères yi nga xam te ne ñoo fare ci espagnol Espagne di ministère des affaires étrangères ak ministre de l' intérieur euh, ñoom nag weddi nañ ñi nga xam te ne ni moom mooy euh, ni unité boobu moom bokkul ci li nga xam ni moom moo di manifestation il n' existe aucune preuve de l'utilisation par les autorités sénégalaises d' unité constituée dans le cadre du projet Garci dans les actions subdivisées nee na benn preuve boo xam ne nii wane loo wane na lu nu mel l' intervention en cas de menace grave de l' public fait partie de la mission de Garci Sénégal donc moom ñaan na ci moom mi di Vox Populi ñu wéyal ak bés bi le jour moom dafa ñëw ci jóge euh, ci bopp réew mi président de la République parfum de reprise moom ñaan na ci li nga xam te ni moom mooy loolu euh, jóge ko président de la république ci bopp nguur gi ñaari fan ci weeru avril mu ni le président Sall va demander au conseil constitutionnel d'installer un intérimaire mu ni ki nga xam te ne moom di président de la république dina sàkku ci conseil constitutionnel ñu daal di euh, wut ku ko daal di wuutu moom ñaan na ci moom mi nga xam te ne moom mooy vox populi moom moo di bés bi le jour plutôt kii di Sidiki moom ma ngay wax ni li nga xam ne moom ma di euh, si le président de la de l'assemblée si c'est le président de l'Assemblée il n'y a plus de 19 candidats retenus mu ne bu dee président assemblée la du am du amati li nga xam te ne moom mooy fukk ak juróom-ñeenti candidat yi nga ñoom bokkoon nañ ci kii di pour Abdou Aziz Mbodj bu PRP mu ni le suppléant ne peut pas euh, rouvrir les candidatures mu ni suppléant bi nag mënul waat mënu maanaam ki nga xam ni moom mooy wuutu mënul ubbi waat la nga xam te ni moom moo di mbirum euh, candidat yi moom ñaan na ci moom mi nga xamante ni moom moo di euh, bés bi le jour ñu woyal ak li nga xamante ni nii ba léegi moom mooy de risque de pression sur beauté dans l'amnistie le conseil avait invalidé l'article sur euh, l'affaire Maître Sèye moom ñëwaat na ci moom mii di euh, bés bi le jour ñu wéyal ak source a moom itam dafa ñëw ci gannaaw ñaari fan weer weeru avril vacances pouvoir ak président intérimaire mu ne Sidiki trace deux scénarios mais oublie un troisième le FIPU en en tenue de combat moom ñëwaat na ci mu ne Sidiki moom daa tarase na def na ñaari scénario waaye daal di fàtte benn ñetteel bi muy li nga xamante ne moom mooy fipp ñoom ña nga ca li nga xamante ni moom moo di taxaw ngir xeex ñoom ñoo ànd na ci moom mi di euh, source a mu ni premier bi nag moom mooy satisage yi daal di euh, damm wala weñ loxo président de la république ni ko àla kullial da nga nekk li nga xamante ni moom di nga fi toog ba ba kër ñuy daal di euh, fal keneen moom ñaan ci ci beneen moom mooy président assemblée nationale daal di assurer li nga xamante ni moom moo di intérim bi organiser ay élection ci diirub ñetti weer mu ni li nga xamante ni moom mooy lu boo loolu nag boo amee mu ni li nga xam te moom mooy droit yi ñu amoon mooy droit ak yi ñu boo 19 candidats yi loolu moom day daal di dàq ñu ubbiwaat li nga xamante ni moom moo di listu yeneen euh, candidat mu ñaar na ci donc de processus bi ci moom la ñuy tàmbali mu ñëw na ci mu ni waaye am na beneen scénario boo xamante ne nag moom mooy am mooy sept sages yi moom nañ waa mën nañu wax ni euh, mën nañu conclure que ni euh, ci vacances pouvoir waaye sàq ci président assemblée nationale mu organiser li nga xamante ni moom moo di élection yi mais bu boobaa liste candidat yi nga xamante ni moom mooy fukk ak juróom-ñeent yi day wéy di am ba léegi moom ñaar na ci moom mi di aw euh, source su a ne avant-hier ngi xamante ni moom mooy li judd bër ki démb moom mooy front de bi nga xamante ni nii dina am ay rassemblement ñaari fan juróom-benn fan ak juróom-ñeent fan ci weeru mars ngir ñu organiser élection présidentielle yi moom ñëw na ci moom sur ça ñëw na itam prêt à être le premier lébu roi des arènes moom ki nga xamante ne moom mooy rëg-rëg pare na pour nekk lébu bi njëkk a nekk roi des arènes euh, li nga xamante ne moom moo di combat moom ak Boy Niang ñëw na itam li mu nar a def euh, ak ki nga xamante ne moom moo di Modou Lo Balla Gaye ak li nga xamante ne moom mooy mbirum Aziz Ndiaye mu ni les uppercuts de rëg-rëg moom dugal na uppercut moom mi nga xamante ne moom moo di rëg-rëg mu ni si on me donne le roi mu ni suñ ko joxee ki nga xamante ne moom mooy roi des arènes di Modou Lo nee dina ko daan ci lu yàggul dara waaye yóbbu li nga xam te moom moo di euh, couronne ba fële ca Caaroy euh, donc mu ni mosuñoo gis tamit ab lébu nekk li nga xam ni moom moo di roi des arènes moom moo daa nekk ki ko njëkk def moom mi nga xam ni moom moo di Reug Reug mu ni combat contre ki nga xam ni moom moo di Boy Niang euh, mu ni loolu mooy àdduna bu tukki dina li <laughs> dinañ xeex dinañ bëre moom mi nga xamante ni moom moo di euh, source a moom moo ci xëy ñëw waxtaan bu mu seeq ki nga xamante ni moom moo di Reug Reug mu ne ñëpp ñi nga xamante ne ni daan nañ euh, magam di booy euh, Baye Mandione donc war nañoo waajal seen bopp ndax dina leen dina fayul ki nga xamante ni moom moo di Baye Mandione kii di Makan Beng bu Gaston production mu ni kooku frère am la donc nit la koo xamante ne nii euh, dimbali na ko waaye tamit euh, ku jox cër la ñëw na itam ci li nga xamante ne nii euh, nee na moom signé na ab contrat te ci jamono ji li muy xaar daal moom mooy ab adversaire buñ ko nar proposé mu ni amul benn accord boo xamante ni dox na ci diggante moom ak ki nga xamante ne nii moom ma di Abdou Aziz Ndiaye ci wàllum tëgg làmb ñu wéyal ak Sud Quotidien moom dafa ñëw ci projet bu loi d'amnistie alerte du CUD moom ñëwaat na ci. ñi nga xamante ni moom mooy loi d'amnistie bi ak li nga xamante ni moom mooy second assassinat des martyrs de 2021 à 2024 le collectif des universitaires euh, pour la démocratie ñoom ñoo bind li nga xamante ni moom moo di ab euh, tribune moom ci la xëy daal di ñëw moom mi di sud euh, quotidien ñoo itam ci wàllum immigration irrégulière di Barça wala Barsàq muy le décompte macabre se poursuit ñu ngi wéy ba léegi di waññi suñu ay néew kii di premier ministre Amadou Ba nag demoon na fële ca Saint-Louis mu ne l'état ne baissera pas la lutte contre le les sophilos mu ne nguur gi daal du dakkal mukk xeex bi nga xamante ni mu koy xeex jëm ci li nga xamante ni nii moom moo di lu ni mel moom Sud Quotidien ci la daal di xëy ñëw partir ou périr la jo la voie désespérée des euh, déserteurs de la patrie mu ni dem baa dee loolu nga xam te ni moom mooy yoon bi ñii di bàyyi réew mi woon ginnaaw réew mi moom lañ daal di jël moom Sud Quotidien ci la daal di xëy ñëw ñu wéyal ak Tribune Quotidien Tribune moom dafa ñëw ci li nga xam te moom mooy loi d'amnistie bi Bougane tire sur Macky et avertit les politiciens moom Bougane ma ngay tiire bu baax a baax daal nag ci kaw bu baax a baax ki nga xam te ne moom ma di Macky waaye tamit di artu ñi nga xam te ne ñoom ñoo politiciens yi mu ni politiciens yi waruñoo li nga xamante ne nii moom mooy amal euh, cultiver une sorte d' d'immunité mooy li nga xamante ne nii moom mooy euh, policiers yi daal dañuy def lu leen neex te dara duñ ci fekk mu ni loolu nag war na mën a nekk mu ni li nga xamante ne mooy ñaari fan ci weeru avril Macky war naa euh, passé li nga xamante ne moom mooy le témoin wala jox réew mi kenn ci fukk ak juróom-ñeenti candidat yi nga xam ni ni validé leen ba pare moom Bougane Gueye moo xam ne lu nu mel ñëw na itam ci li nga xam ni moom moo di euh, li xew fële ca euh, Saint-Louis ak gaal ga fa daal di këpp lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaari nit nag ñàkk nañ ci seen bakkan lu toll ci ñaari téeméer yoo xam ni nii ba léegi kenn xamul fu ñu nekk moom ñëwaat na ci moom tribune quotidien ñoo itam ci euh, révélation Al Jazeera ak fondation par causa donc nga xam ni moom mooy am na benn unité spéciale boo xam ni li li liñ leen euh, sant moom mooy xeex lépp lu jëm ci wàllum terrorisme waaye nag nemmeeku nañ leen ci li nga xam te moom moo di ci manifestation yu fi am ñu former leen équiper leen euh, garsi ñoom la nañ leen tuppee donc ñoom leen tax a jóg moom mooy xeex lépp lu jëm ci wàllum euh, fitna jëm ci trans trans li nga xam te moom mooy frontières yi waaye kii di ñu financé leen lu toll ci ñaar fukk ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti milliards ci suñu koppar Dakar ki ko amal di Union européenne pour ngir ki nga xam te ni nii moom ma di Afrique moom ñëwaat na ci moom tribune quotidien ñu wéyal ak euh, laas laas moom dafa ñëw ci li nga xam te ne moom ma di scénario yi mën a am maanaam gannaaw ñaari fan ci weeru avril lan moo mën a am moom Sidiki Kaba ñëwaat na ci moom jëwriñ ji ñu dénk wàllum biir réew mi moom mi nga xamante ne nii moom ma di L'As Quotidien ci la xëy ñëw na itam ci li nga xamante ni moom moo di front de résistance bii di waa fippu fippu la daal di tudd ñoom li ñu bëgg nag moom mooy daal di euh, taxawal wala taxaw comme ni kii di am 23 daal di taxawoon moom ñoo na ci moom mi di euh, L'As Quotidien hôpital régional de Thiès sàcc nañu fa ab gune ab bébé moom ñëw na ci moom mi di L'As quotidien ñu wéyal ak l'observateur l'observateur moom dafa ñëw ci pronostic vital dans l'univers des morts des condamnés à mort j'ai déjà rédigé mon testament dafa ñëw ci ñi nga xam ni dañ leen a condamné seen giiru dund maanaam ca kaso la ñuy faatoo ñëwaat na ci kenn ci ñoom mu ni bind na li nga xam ni moom moo di testament ba pare ba nuppi moom ñëwaat na ci moom mii di l'observateur Benno l'ampleur du malaise ñëw na itam ci Benno ak li nga xam moom moo di jafe-jafe ci seen biir mu ni divergence sur la loi maanaam ñàkk déggoo ci loi d'amnistie bi attaques yi nga xam te ñu ngi attaqué seen candidat di Amadou Ba pëccëxoo wala euh, tasaaroo yi nga xam te ne aussi am na ci APR ak ki nga xam te ne moom mooy Bourgi ma ngay révéler ay pression yoo xamante ne nii Euh, maanaam ma ngi koy méttilu ma ngi koy révélé ba pare di ko méttilu révèle des pressions sur Macky et euh, déplore les invectives euh, et anatime du dialogue ñëwaat na ci ak li nga xamante ne moom moo xew ca dialogue ba date élection yi nag transition bi mu ni Sidiki Kaba trace les voies possibles et invite les sages empêcher le chaos au Sénégal moom ñëwaat na ci moom mi di l'observateur ñu wéyal ak ba léegi l'observateur moom dafa des ci wàllum tàggat yaram ak coach adjoint moom Diafra Sakho ma ngay daal di ñëwaat ci li nga moom moom la bëgg gannaaw ba mu bàyyi football daal di dugg ci li nga xam te moom moo di wàllum coaching mu ni président bu Metz di Bernard Serin moom nag moom moo ko daal di euh, wax mu wala moom moo tax ba mu nar nekk li nga xam te nii moom moo di entraîneur moom ñaar na ci moom mi di l'observateur ñëw woyal ak li nga xamante ni moom moo di euh, radiation bu Ousmane Sonko liste ci liste électorale yi devant la Cour suprême le 4 euh, le 14 mars moom ñëw na ci moom may di l' observateur yor-yor bi la ñu daal di dëgmal moom dafa ñëw ci li nga xamante ne nii. moom mooy wàllum euh, vent de discrimination tension politique mu ni c'est lion indomptable de la résistance patriotique qui doivent être libérés ñi nga xam te ne mi ngi leen duppee ay lion indomptable euh, ci nga xam te ne moom moo di ci xeex bi jëm ci wàllum euh, lii di patro kii di Maty sar Niang Euh, moom euh, égérie de la résistance patriotique euh, ak ki nga xam te ni moom moo di Fatimata moom ñu ngi koy wooy la Sonkolaise donc seen jeune passion passionnariat patriote moom ñaan na ci itam ki nga xam te moom moo di Amidia moom nekk na maire de la résistance patriotique ñoom ñëpp ñu nekk fële ca kaso ñoom euh, yor-yor bi mu dañ leen a war a daal di bàyyi moom ñoo na ci moom mii di euh, yoor yoor bi ñoo itam ci wàllum chavirement may gaal gi nga xam ne suux na fële ca Saint-Louis ak kii di Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières mu ni moom nag ma ngay daal di dénoncer li nga xam ne moom mooy lajj koo xam te ni am na ca ca service yu état bi jëm ci wàllum. Euh, lii di Barça wala Barsax di mbëkk mi moom ñaan na ci moom mi di euh, yor yor bi ñu woyal ak réew mi quotidien moom dafa ñëw ci daal di delloo li nga xam ne moom mooy ordre constitutionnel bi Macky face à un front de résistance moom Macky jàkkaarloo na ak li nga xam ne moom mooy ab front de résistance ñu ñu ko amal nag di waa FC 25 ak aar sunu élection ak li nga xamante ne moom ma di euh, ñoom li ñu bëgg nag moom mooy front de de de défense de démocratie boo xam ne dinañ ko daal di taxawal moom ñëw na ji moom mii di euh, réew mi quotidien zoom sur les maladies rares na ci li nga xam moom ay tawat yoo xamante ni nii liñ koy gis bëriwul muy des pathologies aussi silencieuses que coûteuses yoo xamante ni daal luñ koy dégg lu bëri waaye nag euh, lañ ciy génn ci ay koppar bari na lool pour faju moom ñëwaat na ci lu toll ci juróom-ñetti téeméeri. ñoo xamante ni nii recensé nañ leen fii ci réewum Sénégal moom ñëw na ci moom réew mi euh, quotidien ñu wéyal dem ci tàggat yaram tàmbale ko ke Stade Quotidien Stade Quotidien moom dafa ñëw ci Koulibaly en roue libre en Arabie Saoudite moom mu nekk li nga xam te ni moom moo di euh, Kalidou Koulibaly bi moo doon nekk juróom-benn saakaram ci li nga xam te ni nii moom mooy wala bii moo nekk nar a nekk juróom-benneelu yoon muy gagné li nga xam te moom moo di ab championnat euh, wala am ab li nga xam ni moom moo di ab trophée ñëwaat na ci moom nag fële ci Arabie Saoudite seen équipe ba neex la ñuy def les titres semblent promis à Al Hilal euh, du rock sénégalais ñoom daal daanaka euh, la rawee ña nekk seen gannaaw bari na lool euh, titre bi nag mën nañoo njort nii ñoom ñoo koy daal di jël ñoo naa ci beneen impression série de 14 matchs de rang fukk ñeenti match a ngi nii ñuy daal di am ndam moom ñoo na ci moom Sud Quotidien ils sont intraitables depuis le début de la saison ba bi tàmbalee ba léegi ñoom daal dañuy amal ay jéego yu am solo moom ñoo ànd ci moom Sud Quotidien ñoon itam ci ma Diop ancien international sénégalais mu ni on doit laisser Aliou Cissé continuer le travail moom Yatma ma na dañoo war a bàyyi Aliou Cissé mu continuer liggéey bi but sa koor itam ñëw na ci ak Alseni Ndiaye nekk capitaine gaynde yi mu ni gagné la CAN pour montrer que c' était un faux pas mu ni leen war nag moom mooy taxaw gagné CAN bi pour wane ni li xewoon ca fële coupe du monde ba njuumte la woon rek ñëw na itam ci dopage ak fin de carrière annoncée Paul Pogba paradis euh, du paradis à l'enfer moom Paul Pogba gannaaw ba euh, kii di tribunal arbitral bu daa dalee ci kawam donc ñu daal koy suspendre wàllum ñeenti at yoo xam te du ko daal di football li ko waral nag moom mooy mbirum dopage ak yu ne mel ñëw na itam ci Formule ak saison daje de avec Mercedes Hamilton dernier danse dans une d'une décennie légendaire moom ñëwaat na ci. moom mii di Stade Quotidien ak euh, fële ca Sadio Mané dugal na dém waaye penalty la dugal mu nekk juróom ñeenteelu bitam fële nga xam te ni moom da ci championnat ba ñu wóyal ak record yéen a kaay moom dafa ñëw ci Pam Ndiaye soirée moo terwel fa la nekk ca Écosse mu ni je m'étais donné un défi de rejouer en D1 moom li mu bëggoon nag moom mooy daal di joué waat fële ca D1 moom mi nga xam te ni moom ma di Pape euh, Ndiaye soirée ak mu noon xandal <laughs> yàgg bawul dara jàllal ñu dem ba ñu fa imaam fa le plus important c' est d' être prêt physiquement. <laughs> ngay xandal ak wëndeel. lépp solo moom mooy daal di pare physiquement moom ñëwaat na ci certains me parlent encore de l' mois moi je l' ai oublié. mën ni ñeneen ñi ngi koy wax ba léegi accident bi nga xamante ni amoon na ko ba andiloon ko sax ay jafe-jafe yu bari ci wàllu carrière am waaye nee na moom nag fàtte na loolu ñu ne itam ci mbay ji ñaa moom li mu bëggaat nag moom mooy dellu siwaat ci équipe nationale j'ai travaillé d'arrache-pied pour être convoqué moom nee na liggéey na Euh, pour ñu daal di koy delloo woowaat ci équipe nationale bi sunu lamb la ñuy daal di jeexale moom dafa ñëw ci Ama Pokola et Jacob au front l'écurie Falaye Baldé dans tous ses états moom Ama Ama Baldé ak ki nga ne moom moo di Pokola ak kii di Jacob ñoom ñëpp am nañ combat yu Falaye Baldé moom ci jamono ji euh, ma ngay waajal combat yooyu la Max Mbargane moom itam ñëwaat na ci yëkkati ay kàddu mu ne Siteu m'a dit qu'il veut Modou Lo et euh, le vainqueur Ama moom nee na Siteu da ko ni daa bëgg Modou Lo ak yi moom moo daan ci diggante amaa ak yi ni moom moo di Gris moom ñaan na ci moom mi di euh, Max Mbargane moom ñaan na itam ci Modou mi nga xamante ni reprendre na lii di entraînement yi écurie euh, di jam ñaajo nag euh, taxawal nañ ko moom sunu lamb ci la daal di xëy ñëw tey maanaam koppar yi nga xamante ni Macky digoon na ko promoteur yi promoteur yi danañ jàkkaarloog ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy woy taskatu xabaar yi xam naa dañ caa jotagul voilà loolu daal moo fi gënoon fës ci yenn kaay yi mu gën cee fës lool gannaaw la ñaari fan ci weeru avril lan moo nar a xew ku nekk ak sa scénario y a beaucoup de scénaristes dans ce pays voilà loolu daal moo fi gënoon fës euh, sëñ bi. wéeru wéeru jaariñ daare waaw